suma métier la ñaata at la ci def biñ ma njëkkee rappelé ba dem di ma ber lan lañ ma ñawlo tiaay mo tiaay yoy di ko ba ca kaw bima kanam gi omb yi sama patron da daan fofu la be diplôme. gis nga adina bo ci nekkee da ngay xippi say bët di xol deub nak sa ñu nday gis na nit mënul bañ sa nday ba paré retourner mu ne yow la bëgg nga diko gëm. Anita ba waa dëkk ba lu ñuy wax dafa nar a nekk dëkk. ci lan noonu. gis nga boo xeebee sa pind ak sa ëppukaay yaay bu lay ëpp chaque jour nga xeeb ko ba jël ventilo jàmbur dinañ la ñokkati ëllëg teg doomu jàmbur sa du boobaa di nga teel ci ventilo bu la doon. Eh! mu toll nii nag yow rek laa doon xaar pour mën a tàmbali liggéey bi nu mu waree. ah fi mu ne nii kay sëñ bi ngaa tàmbali. ñu nit yow rek doon xaar. waaw la doon xaar. laajuma mm-hmm. la. fii mooy Kéemaan Vision